jaamu yàlla nu nee nee ko sant yoo ko sëriñ bee jo nee. sëriñ Saalu cant gii di jóg di way kala nee nee. jaamu yàlla nu nee nee cant gii di jóg di way kala nee nee. jaamu yàlla nu nee nee cant gii di jóg di way kala nee nee. jaamu yàlla nu nee nee. ni ko ke yàlla dénk jamono jaa ngi jërëjëf Cheikh Sall. jaamu yàlla nu nee nee. jaamu yàlla gii danu nee nee ko sant. kana tabajini jaka diyoni jirjama sesal kami yalune kami yalune dalune ne kusam yo kusirim bejune ne jirjama sesal kata chumune jile take wawa kami yalune ne sila jagna ni maleka kabawa kami yalune wa kafirin jagna ni maleka kabawa kami yalune murid jagna ni maleka kabawa jijabu yalune kanata daxa julli jàkkaat yoon yi jërëjëf Cheikh Saar. jaamu yàlla lu ne. jaamu yàlla kii dañu ne ne ku sant yow ku sëriñ bee ju ne ne jërëjëf Cheikh Saar. jaamu yàlla lu ne ne. jaamu yàlla lu ne ne. ku sant yow ku sëriñ bee ju ne ne jërëjëf Cheikh Saar. jaamu yàlla lu ne. jaamu yàlla kii dañu ne ne ku sant yow ku sëriñ bee ju ne ne. jërëjëf Cheikh Saar. dañuy gën a tàggat. ko waa rawalam daago daagi jërëjëf ak Saal. jaamu yaa la ne. ak coono jël dadi danu ne ne ko. ma Cheikh Fall. Sëriñ Tuuba be ka dam juba ka dam dox nit mu lekk ka baawa yawa da kan dox nit mu lekk ka baawa ki jaamu Yàlla la kan ka baax ki ni jàkkaar di yoon ni jërëjëf ma Cheikh Fall لك نتباعد لجاك ديان جرجب الشيخ صال جامي يالك يدنو ليني كسر jihaad ci Rajab seesaan jaamu yàlla nu ne jaamu yàlla gi danu ne ne ku san yóbb sëriñ Béthio nee na jërëjëf ndax leen yéen ku yooni neex la gasil la ca dagaani ku yooni neex la gasil la watu daa bopp ku yooni neex la gasil la waa dal foo ku yooni neex la gasil la yéen waa marisi ku yooni neex أجر الكيان نيل قسلات أكرام دين كيان نيل قسلات الشيخ سانا قطبي سيلي ورد جرجة فالشيصال جام يا لقيد نونيني قسل كي القرآن تريد من أمانا نادي أما هنوهن إنه تداتنا دي جرجة فالشيصال جام يا لقيد

بجتن لشيخ سالم الأيمن شيخ بيتوي كشيخ سالم من يو فري بيتوي كشيخ سالم الأيمن أنا من عمل من جوح كان جرجب الشيخ سالم يا بيالك يدنوني نيكو سبيل